جزاك ربك في دار يا أسن خيرا بجاه الذي من نجل الأسن أتاتو توس ترجو وتملأ ممن لو خد بدأ jërë ngeen jëf mbokk yi jàkkaarloo ji seetaan ba tey ñoo ngi wéyal ànd ak yéen ci reportage yu am solo yi nga xamante ne moom la ñuy amal fii ci euh, Daaru Ndiaye rawatina ci euh, commission ak sous commission yi nga xamante ni ñoo ayu ci jamaatu ahibaayi Seexi Asan mu mel ni dugg nañ ci benn commission boo xamante ni am na solo trop muy commission sociale sociale nag yaakaar naa suñ ko waxee xel naa dem ci jàppalante dimbalante waaye itam nag euh, liggéey yoo xamante ni liggéey am solo la moo tax bi ñëwee tam ñi ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy jëwriñi commission bi di Serigne Khadim sëy Serigne Khadim lan nga ñu mën a wax tey ci liggéey yu am solo yi nga xamante ni euh, commission bii di sociale ñoo ngi koy mëne booba ak léegi ak tey lan mooy seen yëngu ci euh, màggal gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne si ñoom laa bokkal liggéey bi. di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci adduna bi xanaa suñ Moussa njëkkante waxtu rek euh, ci question bi nga xam ne laaj nga ko mu jëm ci wàllu liggéey social euh, ginnaaw bi nga xam ne yàlla dogal na ne liggéey bi ren suñ loxo la nekk actuellement nii nga xam ne si ne moom lañ liggéey ci bis bi tey bokk na ci liñ naan akiir ñi nga xam ne si ne ñoo jóg ci yeneen dëkk yi di gan yi nga xam ne dañoo ñëw ngir suñ daaroo son moo xam ay taalibeem na moo xam ay soppeem ñëw dala leen ci dalukaay yu mucc ayib ba noppi toppatoo leen ba nga xam ne bu buñ delloo képp koo xam ne si ne ñëwoo woon bu déwee ne da nga bëgg a ñëw ngir toppatoo bi xam ne toppatoo nañ leen ko ci wàllu bernde ci wàllu toog waxtaan ak ñoom wàllu dara seen xel ba nga xam ne si ne màggal gi bu buñ àggee danga koy nettali seen yeneen i morom ba ñooña bu ëllëgee ñoom it ñu mën a waaj pour mën a ñëw bokk na ci tamit lii ngeen xam ne si ne moom ngeen di gis nii mu jëm ci wàllu euh, suñu mbokk médecins yi nga xam ne ñoom àndal mu ñuy kër docteur ngir mbokki taalibe yi ñu ngi fiy ñëw kenn képp koo xam ne dikk nga ñu consulté la xool la lan mooy sa jàngoro ñu yëkkate la nga xam ne si ne buñ amee ci ay garab ñu jël ko jox la ko nga mën koo jëfandikoo. bu fekkee tamit euh, garab garab yi nga soxla woon nekku fi ñu bindaloo ko dem nga dem jëndi garab yooyu loolu bokk na ci liggéey euh, commission sociale ci bis bi. beneen bi ci topp tamit ku ne gis na ne tamit mutuelle de santé bi nga xam ne si ne doon nañ ci dox ay at bay sunu borom subhaanahu dogal euh, mu daal di Euh, ibbi ci an ci année 2018 bi tamit ñi ngi sàkku bu baax a baax képp koo xam ne taalib suñu Daaru Xasan nga war nga ab soppeem ñi ngi lay woo ci mutuelle bi pour nga ñëw bokk ci ndax mutuelle dafa nekk loo xam ne si ne dafay ndimbal di njàppandal ci ki nga xam ne si ne dafa dafa tawat te sàkku ku ko dimbali loolu moo tax moo tax mutuelle bi jug kon ñi ngi ñi ngi ci lancé appel ñëpp ñu bëgg képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu bi nga ñëw bokk ci mutuelle bi ndax njariñal julli ñëpp la ndax li lay yombalal sa faju loolu julli bu nekk war nga cee mën a jàpp bu baax a baax a baax beneen bi ci topp mooy commission sociale tamit bokk na seen liggéey fexe ba mbooleem fu waaye nekk ci màggal gi ak mooy moo xam commission euh, organisateur la wala euh, communication wala administratif wala fu mu mën di doon ñu dem yóbbu fa ndox moo xam ne si ne danañ ca mën a def la ñuy def moo xam lu jëm ci wàllu togg moo xam ci wàll lu jëm ca wàllu naan la beneen bi ci topp tamit bokk na ci cotisation yoo xam ne ñu ngi koy laaj mu jëm ci addiye ji nga xam ne si mooy addiye suñu Darou Assane ji am na ay ndaw yoo xam ne si ñu ngi leen ñu ngi leen délégué ci biir baas bi képp koo xam ne si ne tamit am nga sa addiye jooy siyaare boo demee ci ñoom tamit ñoom dana la ko dana la ko téyel danañ la koy yeggaleel fa nga xam ne si ne fa nga bëgg mu àgg fa loolu bokk na ci ci tënk bokk na ci liggéey sociale ci bisu tey jii incha allah. Euh, ndax dajale ay ay docteurs. ngir ñuy consulter nit ñi. consultation boo xamante ne bii. li wax consultation gratuite moom la doon. ak nit ñi ci duñ fay dara. ni nga ko waxee. ku ci am euh, loo xamante ne bii garab la ñu war la koo jox su fi amee su ñu bind la këyit. ngeen ko wutoo ndax loolu yomb na ak itam fu ngeen toll ci résultat fi mu toll. waaye yombut ndax euh, buñ dee xool bu ne wàllu consultation ñu bëree bëri jàpp na ne buñ dikkee ci médecin bi. bu ñu leen nangam rek ñoom du baax moo tax euh, chaque jour rek dañuy jéem toujours ñu ngi jéem a sensibiliser nit ñi pour ñu ñëw xool seen bopp ndax ku ne xam ne ne jamono tàngoor ci la nekk ñi nekk ci waañ wi nga xam ne ci ay taal lañuy nekk ñooñu yenn saa dañuy am ay jofe-jofe ci wàllu wér yaram ak ñi nga xam ne xëy na dañuy liggéey ci yeneen kii di ci am seen loxo yi dagg yooyu yëpp tamit bokk ci li tax li sababu ñu indi médecin yi fii pour ñu taxaw seen yitte yooyu waaye nag yombul nag yombut ci nit ki nga mën koo convaincre ba mu ñëw ci li nga ci li nga koy woo loolu yombut waaye nag yàlla mu ngi ci suturaal ne yaakaar naa fi mu toll nii ñu bëree bëree bëree ñëwagul nañ am na ñeneen ñu ni séntu ba fii ak suñ nga xam ne si ne heure ba na war a wàcc jot na. am ngeen ci satisfaction. waaw am nañ ko ci bu baax a baax a baax ndax liñ ci doon séntu lépp wax dëgg yàlla am na ci lu kawe suñu jort am nañ ci lu kawe suñu jort wax dëgg yàlla ndax euh, li naan euh, liggéeyal waaju baax saa yoo ci def dara rek at mu jot de ak yokkute rek nga ciy gis wax dëgg gis nañ ci ak yokkute bu baax a baax a baax a baax. Hmm. jërëjëf sëriñ Khadim Seye euh, ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko moom la fàttali moo jiite commission sociale bi nga xam ne moo nekk fii ci ay Ahibahi Cheikh Assane waaye bi mu waxee ci biir waxam mel na ni tudd na li nga xam mooy mutuelle de santé mutuelle de santé nag yaakaar naa ci wàllu wërgu yaram la jëm. ngir sensibiliser na mbokki taalibe yi ngir ñu mën a dagg carnet bokk ci ñi ngeeg jëwriñ ji nga xamante ni moo koy saytu di suñu jëwriñ ji Serigne Moustapha Sène Moustapha itam ñëpp xam taxawaayam ci wàllu wërgu yaram kon euh, Serigne Moustapha ginnaaw boo dégloo kàddu yooyu ndax euh, mutuelle de santé bi naka lañ ciy bokkee ak lan moo tax nga ñëw ñëw lëkkaloog waa Daaru Ndiaye ci liggéey am solo yi nga xam ni moom la ñuy def tey ngir nit ñi mën leen a nit ñi ñu mën a wuteeg euh, carnet yi nga xam ne mooy mutuelle de carnet mutuelle de santé asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaw jërëjëf sëriñ Moussa Diop ginnaaw bi ñu la nuyoo sant la ci taxawaay bi ak euh, sit internet ak journaliste yi nga àndal ñu ngi nuyoo bu baax ñi nga xam ne ñoo di waa ahbaabu wala ahibaawu Cheikh Darou Assane rawat na ku mel ne sëriñ Moustapha Dieng mi di nuyu bu baax a baax waa district sanitaire bu Touba ak Mbacke nga xam ne ñu ngi fi teew ci màggal bi wax nga dëgg ñun mutuelle de santé Gaynde Fatma nekk fii ci Touba Darou Khoudoss dañoo am loo xam ne lu ñu lëkkale la ak waa Ahiba u Cheikh Darou Assane ñoom sëñ Moustapha Dieng ñi ak seen daayira yi yëpp ak seen fédération waaye rawat na seen commission sociale ñu ñëw wax dëgg yàlla di lijjante wàllu mutuelle bi ak doxiinu mutuelle di fexe seen i membre tam di ci bokk looloo sabab ñu invité ñu tey jii ci màggal gi màggal Cheikh Darou Assane wax dëgg yàlla defaral ñu standing bu am solo bi ngir waa mutuelle de santé Gaïndé Fatma ak personnel am teew fii waxtaan ak mbokk yi ci wàllu mutuelle ñi bëgg a bind ñu bind leen. mutuel de santé nag xam nga ne sëñ Moussa dafay taxawaay bu am solo amoon na fi bu yàgg waaye depuis deux mille 2014 li ñuy wax couverture maladie universelle bi gouvernement du Sénégal taxawal dafa tax mutuel de santé dafa gën a am doole waaye itam dafa gën a am maanaa. ndax bu njëkk ku bëggoon faju ci mutuelle de santé cinquante pour cent nga doon fay waaye nag ndegam nguur ak Sénégal boo bindoo joxe juróom-ñaar téeméer moom itam mu joxe la yeneen juróom-ñaar téeméer dafa tax ñu gën a jël ci paquet complémentaire bi ak paquet supplémentaire nga xam ne ci misaal daal ki jënd carnet gis nga noonu carnet yi carnet yaa ngi noonu boo jëndee carnet bi mille francs sooy bindu da ngay joxe cent muy sa cotisation ba nga joxee 3500 yow ak mboolem ñi nga bind ci sa njaboot sa soxna wala say doom bu dee jigéen gi bindaal ay doom moom borom këram ak ñi nga bokkal kër nguur gi it kenn ku ne joxeel na la juróom-ñaar téeméer boobu. juróom-ñaar téeméer bi it cotisation at mi ku mu neex it mën ngaa joxe 1750 muy cotisation juróom-benn weer su boobaa nag bu fekkee ki joxe juróom-ñaar téeméer la moom bu bàyyee ba weer day tàmbale mën a faju waaye nag ku cotisé téeméer ak juróom fukk. day bàyyi ba ñaari weer muy door a tàmbale man ca faju waaye ñoom ñaar ñëpp nag ñoo tolloo la li ñuy bénéficié wu ci prise en charge kenn ku ci ne ci ñoom ñaar ku mën a doon ki joxe juróom-ñaar téeméer ak ki joxe ñetti téeméer juróom fukk kenn ku ne boo soxlaa faju jël sa lettre de garantie ba dem ca l'hôpital ba wala centre de santé wala poste santé bi la gën a jege foo war a fay téeméer ñaar fukk képp ngay fay loolu mooy mutuelle de santé kon daal Serigne Moussa prise en charge pour cent la ko defee dafa am tawat yeneen yoo xam ne yu mel ni ay dialyse yu mel ni ay walu diabète yu mel ni ay wàllu tuberculose comme yeneen programme yor nañ ko moo tax bokkul ci couverture maladie universelle bokkul ci prise en charge yi di jël waaye leneen lu dul li tàmbale ci ticket bi ngay dagg consultation bu dee ticket bi 1000 francs la 200 ngay joxe bu dee ticket bi téeméer la ñaar fukk ngay joxe xataa bu doon lu mel ni hôpital yi gën a lu mel jannatu nga xam ne ticket 4000 la 800 euh, francs ngay joxe 3200 yi mutuelle la koy fayal bu dee ticket 5000 bi ngay jëndit 1000 francs ngay joxe 4000 yi mutuelle moo la koy joxel ak gouvernement du Sénégal kon loolu mooy taxawaayu mutuelle loo ci def rek nga gis bénéfice bi ni mu doone ndimbal jaboot ak ni mu mën a sakkanale poos comme dañu toll ci itte yoo xam ne ak jafeñ-jafeñ adduna ak conjoncture war a xëy dem ci liggéey bi dem ci xew yi war a daw dépense ak yeneen i frais boo ko boolee ak wérgu yaram boo xam ne fay ba day cher faju ma day cher dana métti kon daal ñëw na ngir paju gi mën a gën a yomb waaye paju gi gën a ànd ak qualité. dañu gis tam nit ñi mel na ni communication bi war a def euh, de santé yi ngir seen wér gu yaram ndax kenn ku xam jamono yi ju xaw a la ci euh, dëgg la jamono ju metti la ci woy dëbal dëbal di woy góorgóorlu ñi loolu moo tax état bi lëkkaloo ak mutuelle ngir yombal faj mi bu baax a baax ba biir Sénégal yëpp kenn dootu am jafe-jafe ci wet googu euh, boo xoolee ku mel ni waa daayira ahibaaw Cheikh Daaru Assane ñoom suñu Moustapha Dieng ñi seen commission sociale ñoom lu ñu mën ci li nga xam ne moo di vulgariser vulgariser li nga xam ne moo di message bi ak ak euh, communiqué bi di koy yaatal pour ñëpp yëg ko ñoom ñu ngi koy def baax a baax ñun ñii mutuelle de santé genn fànn saa wu ne ngi def ay mobilisation sociale ci daayira yi ak ci quartier yi def tam ay causerie fu ci biir Touba ak li wër Touba kazalika union départementale mutuelle boo xoolee ba ci nguuru Sénégal ñoom itam ñi ngi def ay publicité yaa ngi gis sketch yi théâtre kat yi ñi ngi def ay publicité yu am am solo ci li nga xam ne moo di wàllu mutuel de santé waaye ba léegi mel na ni des na yaa ngi koy gis ci télévision bi yaa ngi gis ñun mutuel ñu ngi koy def waaye ba tey des na ndax boo xoolee tuba li fi nekk rek fukki mutuel ak ñett la fukki mutuel ak ñaari ñooy dox boo xoolee département de Mbacké fanweeri mutuelle ak ñeent ñu ngi fi union départementale li man mën ñu ngi koy def am nañ sax ñoo xam ne animateur lañ ñoo xam ne loolu moy seen liggéey wër di yaatal mbir mi ak di ko yëgle waaye ba tey boo xoolee li ñuy wax taux de pénétration ñun Gaynde Fatma rek nga xam ne lii di Daaru Ndiaye ak lii di HLM ak lii di Daaru Xudoos ak Ndiaane ak Daaru Karim yëpp ñun ci suñ zone responsabilité suñ zone d'intervention la book boo de xool li war a bindu bindoo ko li ñuy wax taux de pénétration boo ko xool da naan sax amaguloo 10 pour ndax population boo xam ne ay cinq cent mille habitants war na ko mën wala ay trois cent mille wala quatre cent mille daanaka bu fekkee amagoo trente mille yu bindu ci sa moo lay won ne des na waaye lu ñu mën a yokk jéego yi ci yaatal bi waa daayira itam ñoom suñ Moustapha Dieng commission sociale waa kër suñ daara suñ ñëpp gën cee jàpp ak état bi gën a def ci marketing bi ak ci yëgle bi communication defe naa dina tax population bi gën koy yëg loolu daal mooy mbir mi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax waa màggal gi waa kër suñ daaru asan asalaamaaleykum wa ba tey ñoo ngi wéy ànd ak yéen ci base sociale bi nga xamante ni ci lañ nekk euh, ci màggal ak sëñ Daaru Asan ànd kook euh, daayira bi nga xamante ni mooy daayira jamaatu ahibaayi seexi Asan waaye itam commission yi fasantikoo yi nga xam ne dugg nañ fa dégg nañ léegi itam waxtaan wu am solo wi nga xamante ni euh, Moustapha Sène mi yor lépp lu jëm ci wàllu mutuelle de santé bi xamal nañu ko leeral nañu ko muy njariñul kase njariñ loo xamante ni njariñul ñëpp la moo tax waa kër sëñ Daaru Asan itam soobu ci bi ñu ñëwee itam wax nañ ni am na consultation gratuite yoo xamante ni am na fi doctor yaa ngi fi ba léegi waaye itam ñi nga kenn ci euh, ñi nga xamante ni ñooy saytu liggéey boobu di Baye Baraan Sëy Ñang moom itam di taxawaayam am solo trop ci màggal gi ndax lii day loo xamante ni jot bakkan la lii day loo xamante ni ñi seen loxo jotu seen gannaaw daa bari Baye Baraan euh, nan ngi moo tax ngeen euh, tànn consultation gratuite ci bisu Sëñ Daaru Asan bi ak yéen résultat mooy yi nga xamante ni moom ngeen ci jot amagul auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani ñoo ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw di jottali di siyaare sëriñ bi bu baax a baax sëñ Darou Assane di ko ñaanal yàlla yokk leeram di jaay xeere yàlla soo gisee ñuy def lii xam nga fu ay mbooloo dajee rek dafa laaj mu am maanaam suivi médical. suivi médical bi mooy boo xamee ne am na kenn ku am jafe-jafe mu ñëw ñu xool ko seet ko saytu ko la ca war ñu defal ko ko mu dem continuer waatub liggéeyam mbaa bu fekkee dañ ko war a yobbu fenn ñu yóbbu ko fa mu faju ba wér eh, benn jafe-jafe bañ fa am benn gàllankoor bañ am ci seenu liggéey lu bu koy war ma bu koy mën a yàq loolu nag eh, yàgg na bañ ko dalee def waaye liñ ci gis mooy at mu jot day gën a yokk te loolu dañ ciy sant nag district sanitaire bi nga xam ne mooy district sanitaire bu Touba te docteur Dieng Mamadou Dieng jiite ko ànd ak eh, eh, doyen bu mel ne Faye mi nga xam ne mi ngi nii toog nga xam ne mooy jiite commission bu jógee district sanitaire bu bu Touba di fi ñew di ci japp at mu jot ab depuis magal gi di magal gi ba léegi fay mi moy and ak docteur yi ñew taxaw ko ba magal gi jeex mu dem andi seeni garab andi seeni bagage andi seeni auto andi lepp japp ci ngir yalla ak serigne bi itam di ci jappal nit ñi jàppale bo xam bi bu mucc ayib la nun ñi nga xam ne nag nekk nañ ci bokk ci équipe bi waaye nag ay taalibe bokk ci kër gi moonu ci indi ndax nun noo ngi nekk district sanitaire bu Mbàkke danoo ñëw ànd ak ñoom di leen appuyer di leen ci jàppale ngir liggéey bi gën a mucc ayib ndax ngir liggéey bi tam gën a liñ ci yaakaar nu am ci lu ko ëpp gis naa ne nag liggéey boobu lu baax la ci màggal gi parce que at mu jot day gën a yokku te depuis ñu koy def ba léegi genn jaaxle gu jëm ci wàllu santé mosuñu ko fi am eh, gisuñu ko benn accident benn incident macha allah ku fi am problème rek taxaw nañ la ba nga eh, aw fa nga war a aw ba nga wér wala bañ yóbbu la fañ la war a yóbbu ñu saytu la na mu ware kon nag defe naa ne liggéey boobu lu yokk màggal gi la lu baax ci màggal gi la loo xam ne lii dañuy ñaan képp ku nga xam ne kii yaa ngi nekk di yëngutu ci santé te bokk ci kër gi foo mën ci nekk bu bis bi ñëwatee nga ñëw ak li nga am indi ko ku am garab it na ko indaale ku am beneen moyen boo xam ne bii mën naa seet ay nit yi na ko indaale si ñëwee jàppale nu ci liggéey bi ndax waa district Touba ñoom xaaruñu kenn bàyyiwuñ ko kenn ñoom seen loxo naka jekk mu ngi ci te ñoo koy taxaw di ko saytu ba màggal gi jeex ñun ñi taalibe yi nekk euh, ci kër gi di bokk ci liggéey boobu bokk ci santé loolu moo nu indi ci liggéey bi nu di leen ci jàppale sëriñ bi jox nu ci ndigal ba tax na at mu jot buñ koy defati nu ñëw ànd kook ñoom bokk kook ñoom waaye wax dëgg yàlla ñoom seen taxawaay mat na sëkk te rafet na itam te rafetlu nañ koy itam ah dëgg kon nag euh, wérgu yaram moom daa amul moroom lu mu mën doon rek bu ci àndut ah loola day sooxe kon daal dañuy sant bu baax district bu Touba Eh, ci jàpp gi jàpp ci sunu màggalu sëriñ gi ak taxaw gim koy taxaw nun itam nu ñëw di ko ci jàppale nag rek loolu rek mooy kii mooy moo ci sunu ay tànk woon eh, ñu koy rafetlu di ko di sant ñëpp eh, di sant itam nag gone yi nga xam ne ñooy docteur yi nu leen fi indi nga xam ne ñoom wax dëgg yàlla gis nga ko ci suba ba léegi ñu ngi nii toog ku fi ñëw ñu la wàcc nañ ñu la sonn nañ néewuñu la bàyyi nañ ñi ngi nekk ci liñ war a nekk di ko def te nam gën a rafetee di ñu ngi ko koy defee te seenu wuñ ci dara nag ñu leen ciy sant bu baax di leen gërëm di gërëm itam yéen ñi nga xam yéenay jottali di gërëm commission bi nga xam ne moo sos lii ba boo waral lii lépp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf kàddu yi am na solo ca leer na euh, mu mel ni kon wér-gu-yaram day loo xam ne kenn amul njëgam waaye itam su nee la ñu faj la doo fay dara ñu may la garab doo fay dara yaakaar naa loolu kon. yërmande la yoo xamante ni yërmande Serigne Darou Assane la kon ñu sant baax gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah